rahmatullahi taala wa barakatuh gannaaw bi sant yàlla doole sant yalla bu baax di sant yalla mi ñu may kàttan mi ñu bi di fatani fayat di wa alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi daiman abada alhamdulillahi kasiran alhamdulillahi ala kulli hal mooy ñu ngi sant yalla sant bu day julli ci sallallahu alayhi wa sallam ak wa kiram ak sahabaami ak kepp kam yaangi tepp sunna topp bi yomal qiyaama li o yàlla ci jàmm indoo ko fanaan ko yàlla mi jàmm li yàlla defal jàmm yokku ko yokku ñu sutura ñi feebar nekk ci kër gi nekk ci lopitaan bi waaye nekk ci jàmbat yàlla na yàlla saafara yàlla na yàlla dellu sa sago yàlla na yàlla fukk sa bopp bi yàlla yàlla subhanahu wa taala may ñu wér yàlla yàlla may aafiya yàlla yàlla may aafiya yàlla yàlla may aafiya may ko mboolem julit waaye julit yi jiitu àllaaxira yàlla yërëm leen yàlla xaar leen àjjana yàlla yaatal seen bàmmeel yàlla def seen bàmmeel mu nekk rawdatu min riyaadil janna ndaw yàlla sàmm leen aar leen la xaalim fi yaay gut warsagal leen xam-xam warsagal leen liggéey warsagal leen ànd daw yu baax jigéen yàlla sàmm leen yàlla defal ñu xewali àdduna xewali àllahi mucc safara bokk ñu ñëwaa fi si daaray Muhammad salaa sallam bi jàngalekat boobu ba léegi ñu continuer si waxtaan bi li nga xam ne mooy warugari waajur si doom yàlla subhanahu wa taala di ñëw si aaya bu mag bi ne yaa ayuha alladina amanu quu anfusakum wa ahlikum naara waquuduha annaasu walhijaara alayha malaikatun ghilaazun shidaadun laa ya'suuna llaaha maa amarahum wa yaf'aluuna maa yu'maruun yàlla subhaana taala di wax ak julliti yaa ayyuhaa mooy ñi nga xam ne nag imaan gom yàlla ne ñoo jaamu yàlla donc duñ ko bokkaale kenn duñ bokkaale waaye tamit seen jaamu yàlla subhaana wa taala donc la jaamu imaan boobu nag gëm boobu nekk ci seen xool ba yàlla di wax ak ñoom ne yaa ayyuhaa llaziina aamanu e eh, yéen ñi gëm yàlla yi anfusakum mooy yàlla subhanahu wa taala nit ki balaa ngaa ne nit ki sangul fekk yow yaa war a njëkk set yàlla ne ku anfusakum waajur yi seetal leen seen boppa njëkka soo leen seen bopp njëkka si lan si safara ku anfusakum wa ahlikum naara waaw ndik waajur bi nga xam ne mu ngi nekk si yoon siraatal mustaqim waajur bi nga xam ne mu ngi nekk si yoon bu jub waajur boobu war naa mun a digal doomam mi wala njabootam mi mu topp ko si yoon boobu nga xam ne si la nekk te yoon boobu nga xam ne suñ ko toppee moo leen ay si li nga xam ne mooy safara mooy comme ni ñu waxoon rek waaju war a góorgóorlu si njabootam ñu jànga seen diine xam seen diine ndik njaboot bi soo leen jàngalee seen diine bi xam seen diine toppa seen diine yow sa boppa sowe nga sa boppa sowe nga sa njaboot te yàlla ne ku anfusakum waaw ban naara ban safara du safara yi àdduna de te waajur bu nekk fii àdduna fii ban waajur moo bugg gis doomam muy lakka si safara yi ban waajur bugg ban waajur moo bugg dem dugal boppam si safara ban waajur bugg ko su fekkee ñu ngi moytandiku safara yi àdduna naka safara yi àllaaxira moom la ñu yàlla di wax ne qu anfusakum wa ahlikum naara waquuduha naasu wal hijaara yàlla mu ne taaka taaka ba ay doomi aadama la ak ay xeer ñu ñëpp xam nañ xeer bu tànga naka la mel subhanallah nga gis àllaxira nag xeer bi dafay tàkka waaw dafay tàkka jibét fii moom xeer bi moom dafay mun naa tànga ba xonxa waaye doo gis mu tàkka waaye àllaxira nag yàlla ne tàkka tàkka ba ay doomi aadama yuy tàkka ak ay ay xeer la gis ñun ñëpp xam nañ toogakat xam nga gis nañ mata naka la mel mata soo ko xasee commencé di xamba si safara naka laay def dafay taaka bu jëm dafay taaka bon nag mu ne yàlla subhaana taala mu ne nag dafa mel ni mata yay nekk àllaxira la ñoo xamee safara parce que ay doomi aadama la ak ay xeer yàlla ne nag nañ si muccal suñ bopp ak suñ doom yi ak suñ njaboot mu ne alayha malaikatun xilaazun shidaadun waaw taka-taka bu nag ña koy do ña koy contrôle maanaam ña koy doxal ay malaaka yu am doole la malaaka yoo xam ne ne subhanallah duñ mooy yàlla ku fa war a duga moom amul foo mun a jaar te doo fa duga ku fa war a duga doo fa duga boole si nga nañ mucc safara boobu yàlla ñu ci yàlla muccal mos suñu njaboot ak mboolem jullit ah kañ lu jaram musul moo ko julliti loolu tax yonent bi alayhi salaatu wasalaam wa si hadis mu ne nañ leen ñaan arjana mu ne arjana ñetti yoon yalla yalla nga ma may arjana yalla yàlla arjana dafa ne yàlla dugalal suma jambi ci yow mu ne tamit nañ muslu safara ñetti yoon ne yalla yalla nga ma musal safara yalla yalla nga ma musal safara ma suma njaboot mu ne safara moy wax yalla ne mucalal ki ci man kon safara yalla di ñu wax malaaka yu ko am ñu malaaka nga xam ñokoy ñokoy doxal nga xam ñokoy garde du malaaka yu ndaw de malaaka yooyu ni yàlla bindee sax yéen ñi nekk safara sax yàlla ñu yàlla si loolu suñ gisee malaaka yooyu sax dañoo ragal que ñooñu amuñ ree amuñ ñoom axa ku war a rek dañ laa jàpp rek aha la si biir safara boobu te malaaka yooyu nag nekku na seen coobare bopp lañ ko defee de ndigali yàlla lañ ko def laa yaasuna allaha maa marahum waaw li leen yàlla digal loolu lañoo ñoo def ñoom nekkuñ ne deñ la mere a diw mi de dima ko mere diw mi bugguma ko diw mi defma tooñoon haral kinna ko duga safara didit ñoom ñu yàlla ate pour ñu war a duga safara ñi nga xam ne dañ nekkoon si kaw suuf du njaamu yàlla ñi nga xam ne ay bokkaale lañ doon def ñi nga xam ne ay shirk lañ doon def ñi nga xam ne maanaam loo xam ne yàlla daf ko xaraamal tuubuñ ba deeñoo fekkaleen ci ba deeñoo fekkaleen ci mbokk jullit yi ñooñu nag malaaka yooyu yàlla su leen ne def leen amul dellu gannaaw waaw ne yàlla may ma tuuti wala malaaka yi may leen ma tuuti xaaral ma dem wax yàlla ndax mu baalal ma digit amut amut loo tax mu ne rek laa yaasuna ma amarahum ndigal rek la ñu wee waaw wa yafaluuna maa yumaruun waaw yàlla lu wax tamit loolu rek la ñu def ute duñu am benn ute ak li yàlla subhaana taala santaane waaw ñoom malaaka malaaka amut mooy malaaka duy juum malaaka du juum parce que ñoom ndigal rek la ñoo wéyee waaw am na malaaka bu nekk rek li ko yàlla sas si laa nekk ba yowmal qiyaama du ko a bàyyi nag du ko mos a bàyyi am na malaaka yoo xam ne si sujjuut rek lañ nekk sujjuut bala yàlla bindee bi léegi ñu ngi sujjuut am na ñu taxaw am na ñoo xam ne macha allah te du mos a taay si lu rafet ñu nekk te duñ doo nekk mos complet eh, dama taay dama xiib dama soona déedéet nit ñoom ak saamu nuuraan ya ñoom si leer la ne yàlla binda si leer la ne yàlla binda tax mu ne nag wa yafaluna maa yumaruun waaw ndigal rek dañoo yooyu foofu de waaw bon aaya bi mbokk judi mu suratu tahrim fa haadi ayatun amara bi wiqayatil ahl min an naar aaya bi daf mu ñooy digal pour ñu sowe suñ bopp ak suñ njaboot si safara mbokk jullit yi waaye naka la ñu sowee suñ njaboot ak suñ boppa bi taatillahi taala wa taatihi wa taatihi taala tastaslimu maarifatu ma yajibu an yutaa fiihi waaw mooy ne ñu jaamu yàlla toppa ndigali yàlla yi waaye ndigali yàlla yi dafa war a nekk si lu loo xam ne dañ ko war a xam dañ war a xam naka la war a jaamoo yàlla loo tax jàngal sa doom diine jàngal ko yàlla dafa am solo waaw su xamul du mun a jàng du mun jaamu yàlla dama nag dafa xam yàlla ak jaamu yàlla moo ànd waaw xam yàlla ba pare dootu ko mun a jaamu te jaamu yàlla doo ko mun a def te fekk amuloo xam-xam jànguloo loolu nag war na si waajur yi ñu yar seen doom si li nga xam ne mooy islaam yar leen si li nga xam ne moom la yàlla santaane waaye tamit xamal leen li nga xam ne mooy sunna yonte yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne dañoo dula si alquran ak sunna nga moytu leen li nga xam ne mooy kufru mooy loo xam ne dafay indi yéefar yaa yoo xam ne dafay indi weddi yàlla nga leen déedéet yàlla kenn du yàlla du maas yàlla kenn du ko lii yàlla ko du waxal ko yàlla mu ne waaye tamit loo xam ne baakaar la tamit nga woon ko ne lii baakaar la jàngal ko li nga xam ne mooy dëgg mu sax si waaw waaye loo xam ne lu bon la tamit xakañ ah nga woon ko ne lii lu bon la ba moo nekk xaleel mu magee ko su ko defee mu mu ko moytu lii warugar la boo xam ne waajur bu nekk war na see mun a jóg pour eh, jàppale doomam waaye tamit jàppale boppam ndi kero yomal qiyaama waajur bi doon jaamu yàlla di jaamu yàlla saaga ni njaboot bi bu waree dem ba dugg arjana njaboot bi yuuxu ne ey yàlla suñu waajur bi dem arjana yi kii moo ñu saagaane woon àdduna xamaluñu suñ diine bàyyi si lu ñu ne lu nekk ñu ni koy def suñ diine def ñu ko def ñu ko saagaane bi nga xam ne xamuñ dara si diine bi ey yàlla naka nga ñoo dugalee safara dugal suñu waajur bi arjana yalla o waajubene ko kay an njabot sa njabot yeb ma dugal len safara bugal len yalla ñu musa ci lolu ban waju ra bugal lolu ben ben waju bugul lolu bon nak nañ leen sowe suñ bop ak suñ njabot loolu la subhanahu wa taala santane ci aya bi bon yalla ñu yàlla teg si yoonu mustaqim yalla yalla subhanahu wa taala woon ñu dégg ñu xam ko te ko yalla sàmm ñu njabot bi ñu teg ñu si siratal mustaqim defal ñu hewali aduna hewali allahira mu ci safara muy rabbana atina fi dunia hasana, wa fil akhirati وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين